waaw bëgg rek ak santaat yàlla bu baax ak santaat sëñ Touba ci lim ma defal ndax gënuma ci samay ma gënuma ñi ñu ma bokkal gënuma kenn tanuma ci kenn santaat sëñ Touba rek xam ne loolu sëñ Touba rek moo ko mën def sañ jëmm yi te den xam ne tamit lépp lu ñu bëgg doon ut maire bi ma doon ak député bépp lenn moo ci ëpp solo mooy taalibe gi rek taalibe gi nga xam ne sëñ bi def nañu ko te ñu nekk taalibe loolu laa yëg sama rayam tey di kontaan trop te xam ne tey jii lépp mu ngi ci taalibe loo nekkee nekkub taal dara jomb la kon tey sëñ Touba rek la te lépp fekk di sant nag alaaji Macky Faye parce que lii tey jii bañ ko ko denkee teg ko ci loxoom tey jii mu ko di ko inauguré yombutoon kon tey bu amee lii tamit am mbokku taalibe def ko kon alaaji Macky Faye lu mu def defal na ko ñun ñëpp